ci jamono ji ñuy xeex jàngoro covid 19 ji ci réewum Sénégal rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw bi nu amee benn cas communautaire ba tax na am ay matuwaay yu am solo yoo xam ne jël nañu ko ci dëkk bu sell bii di Touba rawatina marché Ocass mu mel ne nag jamono ji yooyele matuwaay ay jafe-jafe tàmbale am ndax mbir mu doy moo xew ci Touba marché Ocass gannaaw benn ivoirien boo xam ne indi nañu ko ci dëkk bu sell bii di Touba ci moto Jakarta loole nag histoire bi ma nga tàmbalee dafa jëloon jakarta boobee bàyyee ko mbuur ne ko nag mu yóbbu ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci marché Ocass ngi yoroon benn téléphone portable ne nag boobaleeg téléphone dina ko jaayee ñetti junni gannaaw ba borom moto boobee jëlee ko mbuur ba Touba ko file ci dëkk bi di Touba bi ñu fi ñuy wax réseau ba di bërëb boo xam ne dañu fay jaay ay téléphone portable waaje nag génn téléphone boobee ngir jaay ko ca lañ ko xamal ne bile téléphone munu cee am lu dul ñaari junni loolee nag tàmbalee jur coow ci seen diggante muy bi ak kii nga xam ne nag moo di ivoirien bi gannaaw nag ay jafe-jafe am ci noonu ne ca la coow la tàmbalee waaja nag mujjee nañu koo teg loxo jamono ji nekk ca poste police ba nekkee foofee bu dee nag borom moto jakarta bi moom nag dafa mujjee daw bilewaay nag mi ngi ci loxo yi takk der yi mu mel ni nag dafay mel ni dafay gën a yokk ci xar mi karaw ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex covid 19 bi rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah